d'une loi PPP mm-hmm. euh, ci yenn ci yenn gros travaux yi nga xam ne euh, gros chantier yi nga xam ne amal nañu ko fa mm-hmm. euh, en tout cas lépp loo xam ne un Sénégalais mun na ko mun na ko def mm-hmm. ils ont confié ces travaux là euh, à des à des à des entreprises sénégalaises jàpp nga ne loolu wàññiwul wàññiwul un peu Euh, la fuite des des des des capitaux. non fuite des capitaux moo ñu gën a sonal xam nga lu tax may mun a nga war a coacher toujours man li ma gëm même entreprise nationale bu amee problème nga coacher entreprise nationale li ci am solo mooy tey Sénégal entreprise CSE CDE wala Fougerolles wala Jean Lefebvre bu ñu doon xëccoo ay marché Côte d'Ivoire pour defar autopont. entreprise française bi ko defar Sénégal dem ñoom di xëccoog ñoom vous pensez que sénégalais dinañ am dinañ am benn chance pour gagner foofu. non waaw ah, loolu mooy problème naan bu dee sa biir dëkk la la kii gagné kay. yow war nga xam ne kii moo la mën. ngay tuer ton secteur privé moo tax même bu sa secteur privé amee problème nga bëgg a def loolu nga jàpp ni sax mënuñu ko mais coacher sa benn secteur privé mu dem wuti partenaire. mais yow bul xam partenaire bi coachul secteur privé rek moom nga xam parce que loolu nga koy permettre moom mu am référence sur le plan régional sur le plan sous ainsi de loolu la ñu faussé c'est-à-dire que dañoo jël yëf yi mu dem ci tubaab yi xaw cee am doole tellement dans tous les secteurs à un moment donné da ngay dem ba si yàgg les entreprises sénégalaises bon tu te dis ni euh, dans la sous-région marché yu bari yoo xamante ni waroon nañ koo gagné mais duñ ko gagné pour une raison très parce que référence la amul woon te je pense que bu président Macky Sall investissement yu yëpp. bu doon coach nañu benn entreprise sénégalaise wala ay entreprise sénégalaise dans trois ans quatre ans entreprise dañu am référence sur le plan donc yow euh, bañuloo euh, la la la nu mu tudd la problématique de l'endettement mais ni ñu utiliser cet endettement la yow loolu moo la gêné mais yow contre euh, ce ce recours à un endettement massif pour investir mais mais mu ne yow boo endetté wul doo def dara mais c'est que endettement bi il faut que mu productif il foog nga endetté xam nga mënuma endetté wu jënd ay avion yoo xamante ne damay xam ni kii day dem fay ndax nag ñëpp am nañ man damay am état kenn du ko yore noonu état da nga koy yore ci damay investir ci secteur bii nii jox sa bopp ay deadline et dans trois ans lii moom dootuma ko dootuma ko jëndati. et c' était euh, le ce que le président coréen avait fait dans les années soixante amuñu dara maintenant li ma mën mooy lii bëgg nañ ko naa yóbbu xale yi ñuy dem jàngi. mais li ma bëgg bu xale yi demee jàngi ba ñëw dootuñu ko jéggaani fen tey Corée ñoo moom Nasco ñoo moom Samsung ñoo moom LG ñoo moom Hyundai ñoo moom Kia ah, loolu mooy loolu mooy vision mais boo ñëwee rek jox jox je n'ai rien contre les entreprises étrangères mais da ngay dooleel sa doomi réew may mun a bu la si kenn ndax may mun a tey boo ko enrichir may mun a xaalisa mënu koo def lu dul jënd fii beneen affaire yokk ko ubbi beneen entreprise ainsi de ay doomu Sénégal di ñoo ñoo ciy jël mais boo ko joxee ku dem bitim réew di du la bàyyi dara day ñëw créer ay montage financier moi je suis financier mën naa defal benn montage financier boo xamante ni boo ñëwee tu pay asaka ngay fay ci dëkk bi yóbbu yëpp rapatrier yëpp sax sa xaalis koo xamante ni même bu sàccee sa xaalis fii lay toog moom a gënal koo xamante day yóbbu sa xaalis day yóbbu sa xaalis donc yow euh, jàpp nga ne est-ce que euh, mën nañu continuer Euh, le principe de l'endettement pour mën a investir dans des secteurs prioritaires ah, oui. et, et productifs ah, oui. donc euh, l'option en tout cas xaw ma ndax dinañu ko dinañu ko matérialiser xaw ma ndax au contact de la réalité euh, de l'économie et du pouvoir est-ce que dinañu taxaw ci option boobu mm -hmm. donc ñoom ni ñuy fustiger l'option de de, de l'endettement euh, da nga leen di inviter ñu relativiser ko wala non je, je pense que ñoom bu ñu bu ñu c'est l'endettement à des secteurs improductifs ak entre mais endettement mënoo ko bañ parce que réew xam nga réew amoo xaalis bu frais te boo amee ay am nga am benn vision bu claire da ngay soxla xaalis bu dëgër mais mën a boo bëggee am benn télévision ma la koy ñaanal boo xam ne c'est c'est c'est au niveau africain da ngay am investissement bu lourd boo xam ne da xool ñi mën ci télé bu mën ci Afrique nga bit nga taw la nga ngay concurrence seen teg moom parce que investissement bu lourd moo lay jox xaalis bu bëri investissement bu lourd moo lay jox li nga am mais boo bëggee di tepp-tepp day mel ni un fonctionnaire boo xamante ni il gagne trois cent mille francs par mois ne dama bëgg au lieu que ma leb tabax mais damay épargner ba tabax ba tabax kër saa yoo épargner kër di gën a cher xam nga lu ma la ngay naan damay denc samay par vingt mille vingt mille wala cinquante mille cinquante mille boo paree ba dajale dix millions deux mille vingt nga dajale dans quinze ans deux mille deux mille cinq kër yooyu doon jar dix millions cinquante millions yi jar wala soixante millions da ngay ci moment boobu jëndee ko dix millions des ak banque nit ñi dañu naan waa banque bi dafa cher mais boo xoolee prix ni muy yokkee nga xam ni euh, couverture. mais mais mais xam nga si on s'en au discours de de de Ousmane Sonko moom principe bor bi euh, recours à la dette multilatérale moom loolu lay fustigé moom dafa jàpp ne yàgg naa ko dégg mu naan. au Sénégal mën nañ mobiliser euh, quinze mille milliards euh, dans le dans le nu mu tudd en en en ressources en ressources internes euh, donc le recours au FMI et à la Banque mondiale moom loolu lay fi sujet est-ce que aujourd'hui fi ñu toll tembe est-ce qu'on peut se priver de cette de, de ces emprunts euh, multilatéraux est-ce qu'on peut tourner le dos euh, à ces à ces institutions-là xam nga institution institution yooyu boo leen tourner le dos sa pertement la. c'est-à-dire. c'est des crédits concessionnels c'est des à des taux pour cent 0 pour cent yaa ngi nii tey ñu ngi leb. 450 euh, milliards à 7,7 pour cent. FMI li mu lay lebal yëpp pour cent 2 pour cent la <laughs> kooku. ay taux concessionnels ou semi-concessionnels. voilà et donc et parfois euh, boo jëlee risque dem feneen tamit parce que le fonds moom dafa jàppee. pays africains yi comme des hommes d'État irresponsables. ah bon. non mais c'est ça moo tax boo amee état bu responsable munoo munoo am benn problème ak FMI wala Banque mondiale parce que dafa dafa jàpp ni. dangay ñëw gis. nga mën maa fay ñoom d'abord. Euh, effet de rentabilité bi moo leen ci soxal. pourtant pourtant xam nga le taux est constitutionnel le taux est presque nul et saa yu dëgëree mën nañ la ko bal mais. li extraordinaire mooy investissement improductif état boo ko yoree am na investissement improductif yoo xam mënoo ko bañ a def sur la santé sur l'éducation mënta ñàkk mais c'est que dañu jël investissement bu lourd ba pare investissement bu lourd nga def ci ay xaalis bu dul jeex ba pare di ko subventionné waat chaque année mais FMI danaan moo tax terre bi doo ci gis xaalis xaalisu FMI doo ci gis xaalisu banque mondiale mm-hmm. ay BID ay AFD ay BAD. ñoo ci yooyu nag yooyu boo boo ànd ak eh, nga jubóog président France wala demee noonu. ñoom mën nañ la aider pour sa montage financier boobu nga am li nga bëgg mais banque mondiale ak FMI dafa mel ni banque bii par exemple yow boo amee projet business plan def sa étude de préfaisabilité étude de faisabilité sa évaluation ex ante ex post période de mise en œuvre calculer ses indicateurs financiers yëpp ba am sa cash flow nga ne ah man léegi sama projet baax na damay dem financer ko sama bopp c'est une parce que yow mën nga am sa xaalis mais le fait que sa projet jaar ci banque bi. banque dafa am yoo xamante ne erreur bu ci am dañ la koy génneel yow tu as besoin sa projet ñu ñu ñu ñu mu mu mu jaar su scanner bañ bañ ñi ka xam-xam ni baax na wala baaxul boo demee ak sa bopp mën nga def sa xaalis ba pare perte sa xaalis te sa projet di baax mën nga gis ay homme d'affaires yoo xamante ni dañu am xaalis sax ci banque bi bàyyi fa seen xaalis dem lebi xaalis. parce que duñu liggéeyee ñu bëri lañu ñàkk liggéey pour bëgg xaalis la déedéet parce que banque bi apport bu mu leen di indil mooy projet du am faute. banque mondiale IFM loolu lañ leen liggéey moo dañuy ñëw yenn saa xoolal la sa économie day mel ni nga nga ñëw dem hôpital ñu lay xoolal sa yaram chaque fois nga def bilan aussi simple que ça